alhamdulilah ñu ñëw leen seen revue de presse lamb alxamesu tey jii la ca gën a fës suñu lamb mu ngay ñëw def jàngat ci li nga xam si nii moo xew ci saison bi ay combat yoo xam ne dañuy avorté wala dañuy dem ba une semaine avant combat yi du mujjee am la koy waral mooy wàllum blessure suñu lamb moo tax mu taxaw ci seetlu dañu xamal ne Modou Lo digganteem ak Ama ñu ko doon xaar ci Modou moo am blessé ki nga xam si ni moo na ki nga moo di Bombardier ba pare xam le ne daa amoon blessure bu mu bëre waale ki nga xam si ni moo di ama neex ñu ngi doon xaar digganteem mag Lac Rose dimanche bi waaye ña ngay xamle ne moom ama neex dafa blessé ki nga xam si ni moo di góor a soog moom it digganteem ak Fils de Balla dem nañ bay yegg ca combat ba daanaka moom it mu forfait daan ne dafa blessé suñu làmb jox na kàddu ki nga xam si ni expert la ci wàllum entraînement ma ngay xamle ne mbëri la ñuy jël ci seen wàllum yaram ci wàllum poids loolee mooy diisal seen yaram bi moo tax yëngatu bu ñu def rek da leen di indil ay blessure loolee moo koy waral maanaam daal poids bu ñuy jël dafa bari di kàddu yi Lamine Diaw suñu làmb mu ñu xamal drapeau chef de l'État Dakar jël na fa lu toll ci treize millions cent cinquante mille ndax la ëpp ci li nga xam si ni mooy combat yi moom moo ko gagné ñoom waa Dakar ki nga xam si ni moo di Doudou Sané suñu làmb mu ñu xamal ne kër la fa doon la ko metti Fatick li mu perte ci ak moom it la mu perte ci yi ci kanamu ki nga xam si ni moo di Serigne Ndiaye ki nga xam si moo di Thiaka Faye demoon na waaye bëréewul suñu làmb mu ñu xamal ne bi nga xam si ni mooy bu Kaolack moom la demoon ñooñu la gunge woon ki nga xam si ni moo di Ablaye Ndiaye suñu làmb mu ñu xamal ne moom premier drapeau chef de l'état mu génnee ci li nga xam si ni mooy troisième place bi ci li nga xam si ni mooy catégorie cent vingt kilos ci ginnaaw ki nga xam si ni mooy Serigne Ndiaye ak Doudou Sané ki nga xam si ni mooy waa région Dakar ñu desiwaat li nga xam si ni mooy journaliste yi suñu làmb mu ñu xamal ne. ndax waa CNG dañoo am problème ak journaliste yi ndax gis nañ bi ñu demee foofee ca Mbour ca drapeau chef de l'État ba fañ leen dalaloon ca siège Mbour Petite Côte ba la foofee journaliste yi rafetlu ñu ko woon ñu ñëwaat fii ci Diourbel leen dalal sori lool mu di Bambey ki nga xam si ni moo di Boucar Ndour suñu làmb ñu xamale day organiser foofee ca jaxaaw samedi 21 mai dafay tëgg làmb teg fa mise bu toll ci 1 million ñi nga xam si ni tamit ñooy les charges de l'arène association bi Moustapha Gaye jiite dimanche bi ñu jëm ñoom it dañuy teg 5 millions foofee nga xam si ni mooy stadium Iba Mar Diop ki nga xam si ni mooy Boy Diouf nekk ci école de lutte Balla Gaye mooy xam ne ma ngay waaj bu baax a baax ndax day bañ koo bett bu ko promoteur yi fëggee rek pare na pour bëre te moo tax ma nga ci ay entraînement am beneen combat bu taxaw a ngi nii diggante Balla ma ngay xew le 29 mai foofee ci arène nationale diggante Fils de Max ak ki nga xam si nii moo di Batista 2 combat boobee Sambay moo ko tëgg beneen combat ngi nii ñu bëri jàppee ne combat comédien la waaye bu ginnaaw loolu weesoo buñ demee ca làmb ja xamal ne làmbi règlement de compte doon diggante Albouri ak ki nga xam moo di njambaan beneen combat buy neexee ngi nii diggante Mama Lamine ak Garga 2 Pape na boobu combat ma nga xam ne combat bu ñu yàkkamte yéeg a ngi noonu combat buy xeeñ neex a noonu ndax ñaari mbëri ñemente nañ waaye kenn amul droit def ci erreur kenn amul droit perte boobule combat ñi nga xam si ni war nañoo bëre le 29 mai mardi bi daanu jàkkaarloo foofu ca Thiès moo di Ousmane Gandigal ak ki nga xam si ni moo di Boy Jaxaaw ki nga xam si ni moo di Franc suñu la mu ñu xamal ne ma ngay xam ne kii te soqul ak moom ñu ñaan ñëpp lu ñu waxante nañ fexe ba li ñu dikk askan wi dig ko amateur yi bu jour baa nanu ñëw appliqué loolu nanu ñëw indaale forme nanu ñëw xeex nanu ñëw bëre ba amateur yi kenn ñu jéppi kenn du ñu mere ku ci nekk daal la nga wax sa moroom xas-xas loo ko ci signature yi boo ñëwee jouru làmb jaan na nga dëggal sa bopp ba indaale loolee ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni ki suba incha allah